asalaamaaleykum ma jottali leen xibaar bu bàyyeekoo ci ministère bi ñu dënk wér yaram askan gi ci wàllu mbas mi tey ci bésu dibéer fanweeri fan ak benn ci weeru janvier atum 2021 ministère bi dënk wér yaram askan bi jot na résultat examen virologique yi may waaj lim ci ñaari junni ak juróom-ñett fukk ak ñett test yu def ñetti téeméer ak fukk ñoo ci positif maanaam téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett cas contact mooy ñi laale woon ak ñi amee doomu jàngoro bi amul benn cas importé téeméer ak juróom fukk ak ñaar ñoo jot am doomu jàngoro bi te xamuñu fu ko jëlee ñu naan leen transmission communautaire ci ñooñu fukk ak benn la ñu nemmee ci Louga ak tuuba juróom-ñaar ca Kaolack ak Kër Massar juróom-benn ca Maris ak Parcelles Assainies ñeent ca Daara Diamniadio Richard Toll ak Sacré-Cœur 3 ñett ca Arafat Dakar Plateau HLM Liberté 6 Linguère Mbour Médina Popenguine ak Rufisque ñaar ca Cambérène Cité Soprim Daaru Musti Fann Grand Yoff Géejawaay Liberté 1 Point E Sébikotane Sicap Mbao ak Tamba benn ca Bambey Birkilaan Bopp cité Elisabeth cité Impôts et Domaines cité Kër Gorgui cité La Linguère Colobane Derklé Fass Delorme Fass Mbao Fass Payotte Gibraltar Gueule Tapée Kaffrine Kanel Kër Mbay Fall Kunun Liberté 5 Malika Mamel Mermoz Ngor Ñaari Tali Nord Foire Ñaay Patte d'Oie Petit Mbao Pikine Sakal Sangalkam Scat Urbam Sicap Baobab Thiès Yara Yëmbël Zac Mbao zone B ak zone de captage ñaar téeméer ak fukk ak ñaar malaat ci ñi ñu hospitalisé woon wéer nañu bésu tey juróom fukk ak ñeent malade ñoo ngi suñu réanimation juróom ñaari malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb gaaw fanweeru fan ci weeru janvier atum 2021 ñeneen ñi des hôpital ñoo ngi tane ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk bi Sénégal wàññi ñaar fukki junni ak juróom benn ak juróom téeméer ak ñaar fukk ak ñett cas positif ci ñooñu ñaar fukki junni ak benn ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk wér nañu ci juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñàkk ci seen bakken mu des ñetti junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci hôpital ministère biñ ñu dënk wér yaram bi mu ngi leen di ñaax ngeen sàmmoonte ak digle yi mooy takk seeni masque saa su ne di raxasoo ak ndox ak saabu wala ñuy utiliser gel hydroalcoolique di dandante lu toll ci mètre ñu ngi leen di gërëm ñi ñu yendoog jàmm